Assane Mesre ñu dooree ko rek ak rassemblement bi nga xam ne tey jii ñu ko woote mooy sa mbokki euh, chroniqueurs yi ak journalistes yi daal defe naa ne tey jii seen ndaje mi woote nañ ko xaw ma ndax bi yoon woo nañ la wala woowuñu la hmm. waaye daal ci àjjumay tey jii la ñuy jàpp daje nee nañu yuuxu injustice ak puusum élection yi ci réew mi. Hmm. waa sant yàlla <coughs> nuyu leen ñoom ñëpp rek nuyu journalistes yi nag moom. bu ma ko dee def si Awa Diop rek laa ko njëkkee ndax maa ngi gis sax ñu ngi koy laaj si commentaire yi nii mm, soxna Awa ñu ngi koy siyaar baax di ko ñaanal jàmm di ndokkeel initiative bi maam Biram Waaj seen sëñ Saliou ak Coraat ñoom ñëpp ñu leen di ñaanal ak Salma. den wax ni daal nañ góorgóorlu ba autorisation ak ñàkk autorisation lu mën a xew nañu def li nga xamante ni moom lañ programmé te it nañ fexe garanaat tàkk fa ndax loolu mooy génne kuréel gi. Hmm? garanaat na tàkk. non xam nga bu ñu demee. autorisation lu fay taalee grenade. waaw xam nga bu grenade tàkkee dina tax ñu ni gaase nañ journaliste wala taal nañ grenade ci kaw chroniqueur yi xam nga wala wala wala waaw bu ñu ñëwee toog mën a kii mais nag bu ñu demee wax si jàmm ñibbi si jàmm bala ñoo ñibbi mën nañoo fàtte ni tase woon nañ. wala li ñuy xeex mën naa bañ a jàll. kon yow bëggoo ñuy tot di wax ci jàmm ñibbi ci jàmm. Hmm? Hmm? non xam nga affaire bi ni ni ma bëggee laa mu demee nii. waaw moo ñu gaase leen. non non il faut que mu kii mu am rythme tuuti. maanaam mu ñu gaase leen. non pas sax yooyu kii na rek mais daal en tout cas ñu ngi ñi ngi wax ne nañ dem xam nga bii jàll waajoon nañ ko àjjuma man dem naa. waaw ba ma demee gis ay nit léegi laa fa gis saafante ak ñoom gisuma fa kenn gisuma benn programme ma ñibbi kon nag nañ fexe ba biit nañ demaat ndax bu fekkee biit fexe nañ ba demaatuñ daanaka kuréel gi dafay doxee daal di tàbbi géej te kuréel gi am na solo am solo goo xam ne warut tàbbi géej wala bu fekkee ni demuñu tey kon nañ wax ni kuréel chroniqueur yi nga bokk nañ si ñun nañu boole suñuy discours nañ siy boole temps pour xeex bi. te bañ a wàcce si si mbedd mi xeex bi. Mm. pour président Macky Sall organiser élection yi loolu la kuréel gi tax a jóg ko tax a jóg quoi. yow dem tey. mais sant pas rek. allah rabi maa ngi leen di leen di diglu ba bañ wax fan la ak naka la. Ah, man bi dama woon na la diggante nañu waaw. xamoo fan la. Hmm? place de la nation laa dégg ak place de l'Obélisque. <laughs> yaa ngi jaxase <laughs> waaye cinquante cinquante. cinquante. <laughs> <laughs> joxe alaaj cinquante cinquante ñaari place yëpp. yow ñu woo la wax la kii <laughs> ay ñaari place yëpp cinquante cinquante. mu bëgg a joxe ñaari dat <laughs> ñaari ñaari lieu la bëgg joxe am na ñoo ne bii ñu ngi déglu Assane réer doon yi lañ ñu aw ah, léegi ban lañ. te woo nañ te bu gën a xam ban lañu mais fi ñu doon di xool fexe na ba réeral ñeent. léegi toll nii ki toog di seetaan fii la fii la kee daan faa la naan non Assane wala fee <laughs> <laughs> hmm. de la nation daal <laughs> nga dëgg de. Hmm? alaaji Modou baal ma de. place de la nation wala du bëri jaxase yëf yi ah. jaar kii la jublu asan <laughs> ah, ah, ah. sérieux quoi mm, na ko démb waaw maa ngi jégalu moo maa ngi jégalu Modou waa dama waaw place de la nation ak obélisque benn la mm-hmm. mm. waaw ah man nag de la nation maa ngi yaakaar ni ma ngi doonoon côté centre côté central mm-hmm. côté central xam nga central am na foofu ab bayal foofu laa ko place de l'indépendance waaw waaw foofu ci la yaa fay woowaat nit ñi foofu. woowu ma fa kenn de man damay diggu gars yi rek fi ñu ne acca ma dem man maa ngi ci ginnaaw gars yi de bañ naa ko ba dama jiitu. voilà Modou Baal ma dama fàttoon takk ah. kit bi. Hmm. alaaji ndajam journaliste yi ak yi ak lenn ci Sénégal yi nga xam ne bëgg nañu euh, xeex daal li fi nekk euh, gars yi woon nañ leen tey. ndaje bi nu mu tudd d' abord. ah dama ko xam ndaje mi wala kuréel gi. kuréel gi nu mu tudd. kuréelu kuréelu kër yi FDD xaw ma communiqué ñoom Cheikh Bara na moom si boobu dong la bokk. dama kuréel gi kuréel gi nu mu tudd. FDD yaakaar naa ne dama ne bon n'est-ce pas yi ñoom ñoo ko taxawal. ak journaliste la kay ñëpp la. ñëpp la waaw ñëpp la war a doon c'est kuréel gi bu fekkee ne dañ ko identifier ne bon chroniqueur yi la loolu du baax waaw. Hmm. parce que waaw parce que. loolu chroniqueur yi de bëriwuñ. loolu day tax li ngay woote pour nga mën koo réussir day compli day jafe parce que boo seetee la plupart boo déggee ñu ne ndajeem jàngalekat yi dafa nit ñi dañuy jàpp ne kii maanaam li nga ah. xamante bi yow moom ngay xeex danga ko war a gën a yaatal maanaam tur bi dafa war a ratisser large hmm. nga gën a ubbi kuréel gi quoi comprendre nga nga xamante ni bi léegi keneen mën na toog fa gis ni kat li ngay combat saa wolof message na de ah? hmm. nga xam ne <laughs> li ngay li ngay li ngay combat lenn la loo xamante ni bi Euh, lu légitime la nga xamante ni bi ñëpp mën nañu am accès ci li nga xam ne ah, mooy mbirum quoi parce que jamono ji ñu toll ni moom lépp lu waaye di créer rek euh, lu jëm ci loolu loo xamante ni bi ku ne mën na caa bokk bokk la war a doon quoi hmm. waaw donc comme que tey lañ woote ndaje ñu ngi xool hmm. donc waaw parce que kii la boo xamante ni un million ah. la waaw yàlla mën nañoo am lu ko ëpp de ndax réew mi bari na. mënu ko ëpp moom mënu ko ëpp ah, ah, naa ne nag asam moom mënut boobu mënut ne. ah waaw. lu tax ko wax. mais ña fa ay borom la. may nañ doon ah. ay borom yi kër a nekk. waaw a eh, man dama a dajale un million de personnes. yow mënoo dajale un million de personnes. man déedéet. waaw li mu wax moom li mu wax moom loolu moom loolu moom loolu moom wax la rek waaye xam nga dajale un million de personne moom sama mm. yombut. dajale un million de personnes. Mm. ci réew mi day yomb loolu loolu yombul. Mm. bu fekkee ku ne ku ne dogu nga. Ah. waaw ku ne dogoo. <coughs> yomb na ah man de loolu de leen laa xam ne moom mënoon nañu fee mënoon na dajale un million de personnes. tey bu ñu ñëwoon Sonko génn na woote na fële. waaw ah, mën na dajale mën na ko bañ a mat sax un million de ah. personnes mais un million de personnes dafa bari. bari na de un million gaa yi génn rek. donc daal naggaa yi daal nañ euh, génn dem wuy ji nest am na autorisation ah kii de Cheikh Bara su ma juumul démb nee na nee na yaakaar na dinañ ko am déet loolu kay autorisation ñàkk autorisation doxu ñaxtu kay déet da nga a kii ah déet ñoom bee jaal defuñu ñoom bee jaal defuñu bii moom bu ñu ko defu dañuy échec par force def la hmm? kon na si waaj rek buuxee bul forcé nit ah. ñi ne Allah <laughs> vraiment Assane ba pare naan nañ leen dégg bi mu commencé <laughs> bul forcer nit ñi Assane. waa mais Assane mais allah kulli alin na yëf yi demee nii. waaw ak naan dañu leen yaa ngi dégg dem leen far <laughs> da leen di sañaxal. Hmm? ci kii bi. waaw ak leen gaase. Assane <laughs> bi ak ñàkk autorisation bi moom. waaw ñaata. Hmm, cinquante cinquante. <laughs> autorisation war a doon dañu war dem hmm. dañu war a dem. macha allah mais démb nag. Euh, maa ngi doon gis ci commentaire am gaa yu naan Cheikh Bara dalaa dooru pik waaye Assane ku ko dóor da nga ko abal yat bi mu fayu waaw ah Cheikh Bara Ndiaye de nee na Abba daf maa fal meilleur comédien mais Abba kay li wax yéen ñëpp dégg nga ko. meilleur chroniqueur de tous les temps tous les temps. waaw moom daa saxal. waaw ah, tous la wax tous les temps ah, na xam nga tey jii loolu day métti Cheikh Bara. ah non non non non ah. Cheikh dafa dugg foo xam ni. Euh, bu fa duggee sax moom day gaañu. parce que li tax mu koy muy gaañu. parce bu ne Abba mënta fal lu lu jëm ci comédie. kon Cheikh Bara moom it mënta nekk chroniqueur. waaw mënta dee ci base bi mu taxaw ba bëgg a folli Abba fële. kon moom mënta nekk chroniqueur. ndax des fois ay journaliste dañ koy dalal. waaw dafa moom journaliste wu ko invité. <laughs> kon Cheikh Bara ay sëriñ ko war a invité. waaw kon ab comédien wu ko invité. waaw ndax Cheikh Bara ab comédien ko. voilà ah. ab comédien lay ah, defal. yow lan moo tax yow. waaw waaw wax dëgg yàlla dama ko bàyyi sax parce que bu ne ab comédien <laughs> ab comédien wut na fal te ab comédien di ko laaj. non nga koy bàyyi mu xaawaaba waaw. <laughs> Ah, <laughs> man maa ngi doog a dégg ah. maanaam Cheikh Bara ab comédien ko doon kii mu ni comédien mënta ah, kii mënta fa euh, ah donc Cheikh Bara ah, foofu day day day day day daanu. ah cinquante cinquante. waaw waaye lépp daal cinquante cinquante. cinquante cinquante Abba gis na li nekk si penc mu ñëw confirmé. wax dëgg yàlla muy cinquante cinquante. daa war a daa war a ñëw Abba. dëggal Assane lu tax waxugut. maa ngi ko si git pratique nga war a til nga war a def mu si gi nga ko xoolal aywa moom it gis naa ko sax di mi ngi leen nuyu Abba. Abba waaw waaw gis nañ ko. ñu koy nuyu bu baax a baax. Mm, ak ñoom tos ak gaa yi ne foofu yëpp. Mm. maa ngi nuyuwaale sama jigéen ba Mami Linguère ak euh, Oustaz kii Ndiaga sekk Oustaz Ndiaga Seck ak Sidaat Thioune. moom nag Oustaz noonu nag émission bi dara dara dara du ko si raw. Oustaz Ndiaga Seck moom bu ab bu tàmbalee bu neen teen rek mu bës dugg. Oustaz Ndiaga nit ku baax la. benn baat du ko si raw. ñu ngi koy ziar bu baax la te bëgg bu ah. baax. Mm, ak Al Amin ñu ngi koy ziar. moom la ñuy dara ñoo ña nga ñëw Hmm? ñoom oustaz Ndiaga ñoom ñëpp ñu nga jëm. daa wax ngeen ko ko rek. Hmm? Hmm? Assane moo yore loolu. daa dem Darou Moussi. Ah, wax nga ko waaye. ma ngay dem Darou Moussi. mais ah, jeudi dina fekk mu ñëw. jeudi dina fekk mu ñëw dina fekk mu ñëw. rek ñoom ñu xëy ñëw. tabarkalla yal na leen ran ran bi jàpp rek ñu poussière <laughs>